combat bi. si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo loolu ci combat loolu ci bañul moom boo bañ ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la quoi. man li ma wax moom laa xam mun sama kopp xool de incha allah ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suufle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man di leen jaajëfalaat bu baax di am mbégtey jano ak yéen chaque jour ah contentement bi nag mooy di leen indi li gën a fas ci xibaaru làmb yéen ñi topp ci ak bitim réew noonu laay def rek daal di nuyu Mbaye Babacar bi ma feggool ñu daal di a fas Mbaye maa ngi leen nuyu mel ni da xëy rek kontaan quoi damaa bég dangaa bég mbàkke la eh na jàmm yàgg mi ngi noonu jaajëfal bu baax a baax suñu xarit ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam fu waay mën a nekk dañu seetaan ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax jàmm ju sax dàkk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te di ko sàkku ci yéen noonu nag den fàttali ba léegi seen revue bi huile j'adore moo leen koy maya ak gàmbu bu complet boobu mu àndal daal ñu indi dem seen j'adore spaghetti j'adore macaroni j'adore tegal ñu ci ataaya j'adore nee leen jigéen ñi comme ni ma ko waxee ku bëgg sa waañ neex soo toggee ñëpp kontaan te mooy utiliser gamme boobu mbay baa oto waaw moo ko yor loolu moom yaakaar na mooy géej gi am na ndox wala nga taxaw ci buntu pharmacie bi naan est-ce que am na garab waaye eh, suñu partenaires yi ñi nga xamante ne bii ñooy waa Eau kayaar ñi ngi ci biir Eau kayaar nag ku ne xam na ne mooy ndox mi gën a neex ci ndox yi nekk ci réew mi set na sell na neex naa jëfandikoo am na ay ferñeent ya nga xamante ne bii baax na ci xele baax na ci mag kon daal mënoon mën nanoo jàpp ne aw kayaar. mooy ndox mi ñuy aar. ay ca doxalal. ba tax na tey jii en ah, jeudi 24 juin 2021 journal jëm ak xam xëyee ci xëtam mu njëkk. di la la guerre numéro 2 le puncheur de Waalo la nga xam ne nag mooy nelawul guddi nelawul bëccëg la mu bëgg nag mooy titre roi des arènes bay baabu. loolu rek moo nekk ci xelam jël roi des arènes Euh, comme ni gars yi di def pare nga pour def ko ñu jox la ñaari avance wala ñetti avance nee na loolu moom bokkul ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, option benn avance rek lay jël wante euh, yoonam nee na ki nga xamante ne bii moom mooy Gris Bordeaux bokk ci da ko écarté tege ko nële nee na pareegul pour jàkkaarloog moom ñu ne ko gis nañ Franc dem ba doon la dëkk mu ne Franc am na droit dëkk ma ndax mbër mu nekk am nga droit tàllal sa ay loxo ku la neex dëkk ko wante dëkk mbër Ndeye Mbacke taxul nga bëree taxul nga bëree ak moom mi ngi noonu loolu kàddu yooyu mi ngi ko yëkkatee ci open press bi nga xamante ne bii Aliou Seye 2 moo ko doon def euh, foofu ci euh, géejawaay la Lac de Guiers yëkkatee yooyu kàddu waaye daal nee na lii di ñaari avance ñetti avance moom nee na moom du ko jël ba tax na ci kañ jëm nag ka jël avance bu 10 ans bu dul di Sa Thiès moo war a bëri Moussa Ndoye bi. côté Djigo nag mooy xëy di xam ne technique la gis ci combat boobu ñaar tax ñoom ñaar ñaari champion yi waaye ñaari champion yu mën bëri pur et dur. dañoo mën a bëri mën a xeex loolu la ko coach jigo wax nee na ñoom ñaar ku ci nekk macha allah li ñuy wër ci mbër lu ci bëri mu ngi ci yow. mën nañoo bëree mën nañoo xeex mais coach Diogo nee na combat boobu noonu xeex bi nekkul la nga xamante ne bii moom mooy moom moo war a def différence bi ñaari mbër yi waruñu focaliser wu de trop ci li nga xamante ne bii moom mooy xeex bi. mais ci biir euh, jàngat bi ba léegi coach Diogo nee na Sa Thiès moom am na yaakaar ne heure bu jàppee Moussa Ndoye combat bi war naa mën a jeex. maanaam Sa Thiès da jox favori. waaw non ko favori mais nee na Sa Thiès euh, fooram moom mooy jàpp. moo gën a nekk jàpp te bu jàppee balaa bàyyi làmb ji day jeex. làmb ji day jeex. la lañ jàpp nag te jeexal ba léegi ñu koy mbëbët ñu naan am na wala amut journal suñu làmb la dara ci ñu ñëwaat supporter Sa Thiès bu jigéen boobu ñu ne woon gis nañ ko yaraax mu rëcc nag rëcc rëcc bel nag may baaba bel. ndey Mbàkke lu am la ndax open press bi Moussa Ndoye mujjee def. foofu ci yaraax barki démb ban fa demee suñu benn naataango laaj na ko nee na ko gis nañ ne dafa am benn supporter bu jóge woon géejawaay ñëw fi am yu doon def ba sa sa sa sa amateurs yi wala sa supporters yi euh, bëggoon koo bundu xataal yow nga taxaw ci taxawaay bu am solo ñëwalaat ñu ci mu tontu ne loolu loolu lu am la. taxaw naa ci taxawaay bu am solo jël ko am fu ma dugal woo gendarmerie ñu jël si ko mais nee na. Euh, waa kër Sa Thiès yi c'est pas la première fois ñuy def loolu parce que Sa Thiès muy bëree ak Boy Niang gisoon nañ am na benn supporter bu demoon foofu ca Pikine defoon lu mel nii ñu moytu yu mel noonu parce que bokk na ci la nga xam ne mën naa yéefin la. mën na yàq làmb sax. Mhm. ah bu dee loolu la na gaa yi moytu bu baax a baax fa que làmb foo la ak réeg ah. jarul yenn yaa bu la sa nit nit bu la bu mu la gën a sa bopp sa bopp ma la gën a du bañ naa la mbër yi ku ci gañee ci poosam lay dugal mbër boo ci topp tamit mën nga koo topp ngir li muy def mën nga koo bëgg ngir li muy def mais xamal fi ngay yem ak moom uh-huh. am na solo loolu mooy yoon waaye ka xam xamul fam jëm nag mooy nga xam te ni mooy Mame Balla Mame Balla ak Mbaye Gouye Gui la ñuy promettre ñoom ñaar mooy xeex bu méttee métti seen diggante Mame Balla ak Mbaye Gouye Gui ku ci nekk wax na ci journal bi tey ñoom ñaar nag dañoo war a bëre incha allah nday Mbàkke combat bu metti la nag fi mu toll nii guerre des mots bi commencé na mbay guy gi nee na ko maa la gën a doon xale maa la ëpp doole maa la dàq bëre te bu ñu jàkkaarloo di nga xam ne lépp dëggal dinaa la duma dinaa la daan maam baa la mel ni ku koy tontu ne ko man bàyyiwuma benn xale ak yàlla tollooguma fu may bàyyee benn xale ak yàlla te borom biir bu rëy du ma daan waaw loolu la ko xale ba nga xamante ne bii biir bu rëy la yoon du ma daan. <laughs> ma nga noonu nag CNG lañ jëmaa ginnaaw Pape Abdou Fall ba mu xëyee sànni leen ay xeer démb ci yàq-yàqati ba xale doon yàq arène nationale ba tey nag ki di promoteur ba jiite Pape Pape production daal dinañ koy convoqué ngir kàddu yam yëkkati jëmale ko ci CNG la. ñu war koo déglu. ne ko kàddu yooyu nga xamante ne bii yëkkati woon nga ko na violence amoon ci arène nationale responsabili responsabilité yëpp CNG la tey incha allah war nañ koo war nañ koo déglu war a toog waxtaan ak moom mu indi ay argument indi ay leeral ci lan moo tax mu wax euh, yooyu la kàddu jëmale ko ci seen CNG wante Ndeye Mbacke loo ci mën di dégg ak lu mën di xew làmb violence bokk ci. déedéet da koy ñaawal sax. waaye galaa lu simple lañ dem nag lu simple fa muy amee mooy kalum kalom lay kalom kalom. Uh-huh. le treize ba nag un million trois cent la Mbaye Babacar. Aliou Faye dëkk ca kalom mu tëgg boobu lay euh, gala de lutte incha allah bu ci yàlla àndee mu nar a nekk làmb ja nga xamante ne bii nag mën na caa xaar. ay ponkal mën nañ caa xaar ay mbër rawatina mbër yi nga xamante ne bii ñoo dëkk ci dëkk yëpp yëpp yi nga xamante ne bii wër na Fatick incha allah bu ci yàlla àndee ki nga xamante ne bii mooy Aliou Faye moo ko tëgg di ci woo amateuru làmb yëpp. te la ñuy woo amateur yi nag mooy combat ba nar dox ci diggante assurance ak Gambien Gambien nag li ñu koy wax ci journal bi mooy daan nag la war a def pour lancer wu daal di génn ci saako yu nekk. Sidi Diakhaté le promoteur de capitale de Rail moom moo tëgg boobu le combat Diakhaté Kaba Yéeri noonu la ko woykat bay taggee noonu la ko woykat bay taggee euh, Gambien nee na fi mu toll nii relancer wu la bëgg. ñëwaat ñu gis ne gëjoon naa bëre lool ci digganteem ak bébé Saloum loolu 2016 la woon fi mu toll nii nag dafa bëgg a ñëwaat waat boppam li ko rawoon ñoom ñaar ñëpp li leen rawoon ci làmb lañ bëgg a rattrapé waat muy muy assurance ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Gambien kon ñoom ñaar kenn amu ci droit def erreur. pour daal mu ngi noonu nag waaye ka amatul droit def l'erreur mooy CNG. ba dax na dañoo bëggoon li amoon bu amati waaye la woon ni dafa woon ni mhm. ndax CNG vendredi bi ñu jëm bi suba insha allah fay combat bi jox ci diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye mhm. dinañ wote ndaje foofu noonu ngir waajal bu baax seen bopp xale yi yàq ci arène bi mu mel ni ku yokkul danga wàññi te war nañoo def jàngat ci ñaari journée yi jot a jàll ci gannaaw te ay violence am ci mhm. loolee tax waa CNG war a amal daje suba insha allah bu ci yàlla àndee xool yan anam la ñu yan anam la ñu taxawal ngir violence yi nga xamante ne bii moom lañu gis ci ñaari journée yële passé ñu bañ mu bañatee am dinañ waxtaan ak ñaari mbër yi nga xamante ne bi ñooy bëri grand combat bi muy Sa Thiès ak Moussa Ndoye ñoom tamit ñu waxtaan ak seeni supporters euh, gën leen a sensibiliser gën leen a xamal ne làmb fola ak ree ku ne xam na ne ñaari ndam ñaari ndam mooy dugg wante benn mi ngi noonu. te loolu nag dañuy dem ba journal record la muy mooy pour battre Reug le 29 août bi ñu jëm incha allah guy gi engage trois coachs aux États-Unis mu mel ni roi de roi du simple dafa pare. waaw dafa pare te dafa bëgg daan guy gi jël ba nga xamante ne bii amul benn werante looloo tax ba mu demee États-Unis wax nga ko ñetti coach la jël jël na benn coach bu ñuy wax Daniel Tato ak ki nga xamante ne bii moom mooy Jo ku ci nekk ak lim mu koy entraîné bokkul. kii physique la koy entraîné kii lit gréco-romaine kii boxe. moom daal dafa bëgg a pare ci côté yëpp ba bu jàkkaarloo guy gi du am fenn fu ko guy gi mën a jaar ngir am ci moom virgule ba naan da ba naan da koy da koy da koy jege. <laughs> sept ans lañu wax ñu ne dafa yàgg foofu ki nga xamante ne mooy Issa Pouye gëj ko ci làmb ji ne yàgg na fay jóge mais ki nga xam dafay jóge 11 ans après coach EPS ba nag Mbaye Babacar décidé na dellu si waat ci arène bi. Boy Joolaa la tudd ñu naan ko garabu dëkk dañuy dajeek moom ci mboppat yi nag wante man li ma gën a jaaxal ci Boy Joolaa moom premier tour lañ koy daal premier combat. première daanu première combat première daanu bu tiiree bu nee booy Joolaa ak Mansour Fall le benjamin des caméramans fa lay yem te nag bu daa bëree ba pare moom moom sportif la nag. fair play la moom waaw fair play la bu bëree ba pare day dem ci euh, tëggkat bi def ambiance fecc kontaan loo amateur yi fecc ba yaramam tàng mu tuuroo ndoxam dem toogaat di xaaraat beneen galaa mu dem bëriwaat. galaa jàpp naa galaa yi ma ko seetaan yëpp nag premier tour lay toog. nee na làmb la bëgg daal waaw dafa bëgg làmb nee nag dafa bëgg dellu si waat ci làmb ji wanewaat boppam surtout. ci bëre door bi mi ngi gëj a bëree nag Jurbel ya wax nga ko depuis fukki at ak benn bëreewul nee na dafa bëgg a duggaat ci eh, arène bi nag te bëre dóor bi dëggal boppam ngir ñu xam ne bàyyiwul benn yoon eh, te lan la la fi nekkoon ba léegi jógu fi mm. la fi nekkoon jugu fi ba tax dañuy jëm ci journal Les Arènes Les Arènes nag ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk xam xamuy xëyee. Ah. enchaîné 10 victoires en 10 combats kii Franc nag rejoindre na cercle VIP ba ku ci mel ni Modou Lo le roi des arènes Yaxya Diop Yékini Tyson ak Lac de Guiers numéro 2. waaye nag ka koy tontu ca journal ba nag mooy ki nga xam ne mooy Pa Sang Père Sang. waaw Pa Sang sax la ñuy wax. Pa hmm. mooy coordonnateur ki nga xam ne mooy école de lutte. parcelle mbooloo la xam ne ci journal mooy. kii di Franc da leen a yàgg a berne Mbaye Babacar. leen a yàgg nax da leen a yàgg di leen di leen wax la nga xamante ne bii du ñu ko gis ci ci moom ay waxinam daal ak ay jëfinam da da du doon benn bu leen waxee bu leen bu leen bu leen waxee waxi gauche. droite jaar droite. ba tax na euh, Pa sañ ñëwaat ci say jaar jaaru franc euh, foofu nga xamante ne bii moom mooy Parcelles Mbooloo ndax daanaka fa la jàngee bëre fa la fa la fa la gimbee fa lañ ko xamee mais nee na jamono yii nag dafa bëgg a jël li nga xamante ne bii moom mooy yoonu boppam ba tax na combat bi passé digganteem ak Tyson 2 nee na préparation bi. waaye écrit bi gisuñu ko benn yoon tegul tànkam benn yoon fu ñuy entraîner ngir ñëw entraîner ak xale yi kon daal for euh, mën nañ jàpp ne Franc fi mu toll nii am na leneen lu nekk ci xelam. mu mel ni Franc tur baa fa des rek ñu ne Parcelles mbooloo waaye jëmm jaar xel baa xalaat bi yëpp moo ngi jàmbaar wrestling mm. académique bu paasaw ndax su suñuy for fu ñu koy waxee wéewu bëy lañ koy wax. Mm, for nañ fa lay fa lay entraîner fa la préparer combat te bëgg na. mais nag mais nag Ndeye Mbacke Olof Ndiaye daf ne nit ki waroo fàttee li la fal. te boo fàttee li la fal booy folleeku dalay dalay dalay bett mu ngi noonu te coloré gannaaw lay féete donte dafa bëgg a dem sax na rafetal ni muy demee ba bu demee seen diggan digganteem ak waa parcel mbooloo du am benn ñagas ñagas. li ñu naan ànd na rafet waaye tàngalu ko it na rafet. Mbaye Babacar dama koy remercier bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb looy tàggatoowee xanaa jaajëfal leen bu baax a baax di jaajëfal bu baax suñu xarit yépp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen numéro revue de l'arène muy noonu nag damay bég ci moom bu baax a baax Mbaye Babacar borom 11 max pro ah di kontaan ci moom instant bi moom am nga problème mariage rek ma doono la mu jeex yaa ma gën a xam noonu laay def di ko kontaanee bu baax ay dama ciy kon dama ciy jaajëfal sama jigéen sama xarit Binet Fall nga xamante ne bi euh, États-Unis d'Amérique lay jógee démb andel ma iPhone 11 Pro Max Fall Ndiaga yaaram yàlla na sa jàmm yàgg dafa dafa dafa dafa mën teraanga ci man nag macha allah ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom ak boroom këram di grand Modou Fall ñoom ñaar ñëpp ñu nekk États-Unis waaw couple 100 pour cent Falleen yàlla na leen yàlla na leen yàlla defal jàmm Fall Ndiaga yaaram moom kenn la ci man sama jigéen la sama sama sama sama sama lépp la dafa mel ni man ak moom ñoo bokk ndey ak baay yàlla na ko yàlla jàmm macha allah di ko kontaanee bu baax moom ma madame Fall di bëgg ci moom noonu laay def rek daal di tàggatoo ak yéen waaye nag sama équipe bi damay bëgg ci ñoom bu baax a baax Fama sama caméra mu mën bi Yacine Fall damay bëgg ci yow. Bamba mon papa kontaan naa ci yow trop mention spéciale à Magne Pro ah jinne caméraman loo filmé wu rek dinaa ne bëgguma kontaan naa ci yow noonu laay def jox leen di daje ëllëg incha allah ci tooti bii leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen. combat bi. lu mu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loo ci loo ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha Tine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la waa d'accord loolu moom waxam la ko quoi. man li ma wax moom laa xam mun sama kopp fol de te ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax. parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suufle nga xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man